waaw waaw Dakarnet rek chers téléspectateurs vous pouvez varier les gens de programme que vous regardez waaw pas Didier divertissez en piochant parmi les séries sénégalaises reportages débats politiques culture théâtre sénégalais ba ci film africain yi sport découverte religion ba ci variété ma ne la mbokk téléspectateurs yi dama ne daal su ngeen bëggee digg digg daal Dakarnet rek ci information sodul am tation gaaw leen dugg abonné

Come on, waaye Cheikh Cheikh sànq bi ñu génnee yaa ngi man naa la sama doom bi nekk àndaate. waaw waaw Dakarnet rek chers vous pouvez varier les genres de programme que vous regardez waaw pas DJ divertissez en piochant parmi les séries sénégalaises reportages débats politiques culture théâtre sénégalais ba ci film africain yi sport découverte religion ba ci variété ma ne la mbokk téléspectateurs yi dama ne daal su ngeen bëggee digg digg daal Dakarnet rek ci information sodul amtation gaaw leen te abonné